mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw leen nuyoo kontaan baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp xibaar bu tiis bu metti bu yéeme bi lañ leen di xibaar xam ngeen ni président Macky Sall dafa demoon fële ca bët Sall mu réew mi di def benn tournée économique bi nga xamante ni loolu la fay def bi mu jigee fi nga xamante ni moom mooy Kaffrine wutali fi nga xamante ni moom mooy Kédougou accident bu méttee métti ci cortège président de la république boobu li nga xamante ni noonu la demee mooy ñetti doomu aadama ñoo si génn àddina waaye li ci gën a doy waar mooy ay journaliste Euh, benn sofooru euh, Leral TV ak benn euh, caméraman ak benn technicien ñoom ñoo ci génn àddina bu ñu sukkandikoo ci Ousseynou Wade di rédacteur en chef u point net ak Leral TV waaye nag xibaar ba dinañ ko toppandi xam mbir mi naka la demee am na sax ay blessé waaye lu ci mënti am dinañ ko topp xool xam mbir mi naka la demee waaye jàppale ni xibaar baa ngi noonu di xibaar bu tiisa tiis suñu mbokk journaliste yi euh, mu dal ci suñuy mbokk journaliste. wi leen di abonné seen d'information bi di Dakar ne dara du leen rëcc ci